waaw dix Mass Bantamba ala Mass Bantamba mais yóbbul ma ko Mass bu mu géey ba ma jox fulu kàddu xam naa jël ana nëb ana nëb nëb nëb léegi nag problème bi ñu Malick acca mi ngi noonu géréel ma ñooñu mbër mu nekk danga am trois minutes ci biir trois minutes yi dinañ ci signé dinañ leen may cinq nit yu ngeen woo te li gën a bon mooy ngay wax ñu lay dagg ci biir mbooloo yéen nag yéen la promoteurs yi di wax yéen la amateur yi di wax yéen la mbër yi di wax ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ neex yéen ñaar yéenay ubbi bés bi bu neexee combat yépp neex yow yaay Mass Ba Damba nuyoon waaw salaamaaleykum doomu Silwa bi moo leen di nuyu nag di nuyu Sénégalais doomu Silwa bi doomu Silwa anti wi mi sin wend rek in joindin Silwa yi ñoo ma yónni yàkkati moom Malick demal fële Malick demal. Lamine eh, non non ba ah, bilaay demal non non non demal Malick man dama déedéet man xoolal Malick xaaral dama lay wax dëgg rek kaay. non kaay kaay Lamine xam nga xam nga kaay rek kaay waaw defal ndànk kaay waaw déedéet defal ndànk xam nga non dañuy waxtaan xaaral boy duma duma duma la dégg non léegi li nga la a lan amigo Ismaël rek union de Ismaël Malick Thiam demal waaw ah, Suba yi ñoo ma wax. a ngi lay seetaan. in daanoo rek in encore ci nuin. ah Suba rek in daanoo ismin. in ah. encore ci nuin ah ismin wachement moom bu waxee na la tekk lii mu wax nii. lii muy wax nii na amatul. Suba yi ñoo ma ne kii dafa yàgg dafa yàgg nëpp. Sénégalais yi wax leen nax lu nëpp soxla ngeen ko boo ko soxlaa waaye ma dégg sama tànk dem ñibbi lu nëpp soxla ngeen ko wala soxla woo leen ko soxla woo leen lu nëpp kon kii dafa yàgg si làmb Ibba Maar barke Sëñ Saalum Mbàkke depuis Idi Ma Ibba Maar seen waay ñëw ne ancirigi ancirigi rek min yaago si rek min ancien yu simen ancien gi waaro yu simen ay min rek in poté yu simen rek in goso yi in goso yi rek choix yi suuf ñu nuyu sama rakay bu baax alaaj Demba Pam Mbay ah sama gars yi ñoom ñëpp maa ngi nuyu ku si nekk sa tur sa sant ñoo jàppale tey ba ma egsi fii ak 15 ñoom ñëpp voilà mais garaawul amul benn problème. onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf. waaw yow sama rek jërëjëf forox nekk fi. père man lu leer laa leer. lu leer non daa am lu ma lay expliquer. pour nga a xam jël nëpp. xam kii daa man jamono Iba laa mais kii bu amoon fula fii lay toog. rëg-rëg mi cumbukaay kii la doon toog. rëg-rëg gi nii lakk dafa sama toog see cumbukaay. kii bu doon jigéen la man la bàyyi naa jur ménopause la. depuis Iba Mar xale bu tuuti la xoola kii. li jamonoy poñeeg leen seetle kii bu xeexee daanu bu bëree daanu. day soo baaxul doole. dafa toppam siti xoola dakay baaxul. dégg nga de. mais billahi wallahi taala jamaïcain bi laa xamul lu ma a mais rek li ko wax waroo ko ko wax. sinuwaay ñoo wane. trois cas wala au PRN trois te kii mooy boo déggoon li mu la boo déggoon li mu la wax. bu bu bu arbitre bi tëjee barrière da ngay tàkk ci koom. parce que nee na yow boo doon jigéen da nga. ménopause na bu yàgg bàyyi naa amatul. gis nga fii ay kilifa yoo xam ne respect des barke de Bakou. xam nga lan mooy ménopause. waaye ñoo ma ne su dee respect des barke de Bakou en jiw gi rek. kii kii fële li ngay làkk baaxul li ngay làkk nii respecté ñu fi. feu la li ngay làkk baaxul nuyu amateur fi nekkee da ngay parce que suñu waay ñoom ñu ñu nañu woote nañu woote li nga am billahi wallahi da ngay ko mais la jàppee naal du ma laal ah, daal waa mu la wax boo déggoon li mu la wax bu bu bu arbitre bi tëjee da tàkk ci koom parce que nee yow boo doon jigéen da nga na bu yàgg bàyyi naa ju modèle bi amatul gis nga fii ay kilifa xam nga lan mooy ménopause. waaye ñoo ne su dee respect de barke di bakku an li ngay làkk baaxul li ngay làkk nii respecté ñu fi nekk li ngay làkk baaxul nuyu ngay parce que sin waay ñoom bu ma la jàppee naa la duma laal ah, daal waa CNG amuñu daal buñ la waaye dañuy dem de bokk dañ ci yaaw Malick wax nag wax nag balaa muy neex waa ngeen déglu <laughs> maanaam baat la ak tontu yow chinois yi dañ laa yónni. waaw merci Lamine. dégg dégg Malick bu làkkee chinois ma ñëwaat de. waa toogal man man déggu mooy chinois dama lay wax dëgg rek man chinois taxumaa jóg. amigo allez-y. léegi kii bu arbitre soufflé ndax mën ngaa dox ci kawam. kii laa la moo ñu ngeem maag ñàkk maa ngeem conseil maag ñàkk conseil ba arbitre soufflé dama koy dóor ba mu doyal ma jàpp ko daan ko man du ma doyal de moom mooy doyal. loolu waxu mbër la yóbbu biir géew ub na xamul làmb xaw ma doo ko tegalgal ubul làmb da bàyyi ba tëj seen man négocié moom damay xeex laa ñii ñëpp toog léegi damay léegi dama lay laaj kilifa la xoolal biir xam nañu ni day dama la enterrement yow waaw ma ñëw Sénégal Sénégal yëpp xam nañu ni combat bu neex la wool juróomi nit maa ngi nuyu alaaj Demba di nuyu Pambay di nuyu Aloxa di nuyu Inz ñoom Iba ñoom ñëpp di nuy sama mbokk suñu waaye nag ngeen ñëw si tribune bi xonqal ka cur anci wi rek min il mit les parce que kiyoismen rek in fontoismen in gosoismen parce que paoismen rek in faidismen ay ji soisun ara ma cuin tereismen din parce que il faut man maa woo waa parcelle e ba 26 woo waa Kër bi ma dëkk di woo waa États-Unis sama mag moo ma daan yóbbu lam papa Afia Touré ñoom Ndiaw Ibou Ndapa Modou Gueye ñoom Abdou Zer Kanté ñooñu ñëpp woo sama xarit sama doom nday Abdou Tall Ndiaw ma Codou Dieng faatu borom France ak Sénégal maa ngi gërëm ñëpp. ayca matal jërëjëf jërëjëf Malick ku ci topp.